sens c'est-à-dire kii doxalinam temps daf ma jox raison mais di wax nag ne oustaz bi oustaz Modou Fall nii nii la la mën a doxee comprendre naa loolu bu baax a baax keroog bi ma waxee Bamba def na ma nàngam mais lii la ko TFM jëlee ah nan ma baal lii lañ ko jëlee mais du xam-xam du xam-xam lañ ko jëlee tey jii tey jii suñu diine gi Bamba naa jox benn exemple euh, Ahmed Ahmed Cissé. dafa ñëw def tooxindoon yi Mame Matar Gueye woo ko di def parenthèse na mosut a woo Oustaz Modou moom tamit daal di woo Ahmed Cissé Ahmed Cissé ne damaa wax ci diine ñu war maa woo ñu débattre ñu dem yóbbu ma fu ndul attee diine mooy tribunal loolu wax la wax de dégg wax ji di ki koy da kaa yóbbu fu ndul attee diine c'est-à-dire c'est-à-dire Mame Matar Gueye mosul inquiété Oustaz Modou Fall m'a fait mal ce qui m'a suul mosul am. parparloo bi ñu dugaat tuuti ci politique bi lii fi amoon mosu ko inquiété te chaque jour mu insulté diine ak l'islam ngeen koy wax mu leer yàlla waxul kenn ne ku pauvre laa du ma ànd ne gàmmug Seydina Mouhamed gii dañ koy soppi Bercy mm. mu ko si àdduna parce que yàlla toog na ne la li ma lay may xaar soirée la ngeen ko indil mm. foofu yaa ngi incité ak xale bi am sept ans lu bon ak lu baax amul ci suñu diine gi te am na nag loo xam ne kenn du ko ci dugal donte nag ni ko baax luñ ko suñu diine tey bu ñu demee rek xam ne lu bon ak lu baax Oustaz Modou Fall il fait tout sauf waaraate il fait tout sauf waaraate te yàlla mi ma tiim xam na ne am na pays yu mu doon doon am na dëkk yu mu doon doon ñu am lu ñu gëm Oustaz Modou Fall di ci def lii billaahi ñu dal ci kawam suñu diine gi fooyee na ko nu ko neexee. ah bon oui. menacé d'accord. nu ko neex na ko fooyee. musuma d'accord. musuloo d'accord man man je ne suis pas je ne suis pas juge parti mais li may wax nii man mën naa nangu ne sénégalais yi. sénégalais yi nga xam ne tey ab parce que gis nga boo nekkee ci àdduna àdduna ñor la natu la mais bu la yàlla safee ndam la Oustaz Modou Fall nan indi lenn loo xam ne da def muy y Mounas avant may ñëw ci El Hadj ngi lay bégg euh, Bamba uh-huh. Oustaz Modou Fall mm-hmm. diine ji ñuy waxtaane mm-hmm. moo ñu ko gën a maîtriser ah dafa judd ci farata yàlla ak sunna suma xamet mm-hmm. ñu lëkkaam tudd ko nodd ko jàngal ko arxuraan doomu daara la mm-hmm. arxuraan la xam moom la maîtriser mm-hmm. ju yàlla nee ci alxuraan am na. moom ni ñu déggee. yàlla nee na kenn. may kenn. s'il vous plaît Oustaz Modou Fall hmm. dafa juddoo fa mu war a juddoo ñu jàngal ko alxuraan hmm. teg ko ci yoonu siraatal mustaqim hmm. xaala rasul nag ñu maîtriser ko naan ko jàng téere yi ko ruy ko te jëfewu ko dama kon li ngeen di wax nii yéen bu juum de am yéen a juum est-ce que dégg ngeen man maay wax xale bu nelaar bi dama ni Oustaz Modou Fall newul ni lii doon def biir Tiwaawan newul ni bés si moo amoon ci gàmmu gi newul ni Bercy moo amoon ci biir Tiwaawan dañu kër Aziz Ndiaye Bercy moo fa amoon mais am na ci droit. ni ngeen ko tuddee ni ngeen ko tudd da ngeen def ni ngeen ngeen ko tuddee naan ay soirée ay dîner de gala Bercy moo fa amoon. mais moom moo wax Bercy ba pare teg ci ni moo tey mbaa yëg nga ni benn oustaz moo fi nekk ci réew mi bu ñu sonal mooy oustaz Modou Fall. bu ñu sonal liñ koy saaga di ko xas c'est trop man aw ma numéro xaw ma oustaz Modou Fall. mais Moustapha Modou Fall la ñuy xas ci réew mi. Hmm. du ko saaga mu koy accepté. gis a nekk ne mu ne la mën a ah, moom dina fare di tarixa seex di mu jokk. rekam di daw tari tarixa hmm. dina wax lenn lu ko traversé. kan moo gis fu Oustaz Modou Fall waxee ni ci waawoon li fa amoon. wala gàmm gi li fa amoon amul dañu kër Aziz Ndiaye. ba pare moom tontu na Aziz Ndiaye. eh tontu na Aziz Ndiaye de Oustaz Modou Fall boppam la tontu. non xaaral non non Aziz Ndiaye boo ko génnee ci taalibe Cheikh. baa ko mu daaneel allez-y. boppam boppam la tontu boppam la tontu. waaye ñaata Oustaz la nekk nekk ci Sénégal. moom naka ay taalibe Cheikh wala bokk ci beneen tarixa du gis kenn. xale la lan. moom xale la tamit. xale bi xale bi jamono moo fi nekk. te képp ku ñu way ci sa sëriñ sa yaram tàng eh. dañoo way Mame Ndiaye Savon ci sëriñ Fall Mouhamadou Fall mu jóg baatare ko. ok ok ah? ah, xale la mooy sa wax. may sol solo xale. waaw dafa am loo xam ne. mais am nga loo am jom naa. déedéet mais euh, Mouhamadou Fall nañu na daaneel ma jox fi dara lu ñaaw. nanu dem xooli ñuy def le motif ak di def lu ñaaw ñu wax ci ñooñu nañu xool ñuy def lu rafet ñuy wane seen lu rafet ñuy def lu baax ñuy wane seen lu baax ñu bàyyi ñaaw tey fu nit ñi. mu naas olof Ndiaye nee na ku nekk fi sa seer fi sa seer fi sa nante yam fa la sa seer commencé. d'accord El Hadj ay ci ñëw la wax. yow taalibe Serigne Saliou lu waxal ci kaw. xamul Serigne Saliou wax ci gàmm. Mhm. ci gàmm bisu gàmm wax wax génn nga ci bés bi. xaaral ma xamul ma wax ci bisu gàmm. Mhm. ëpp naa méngale bis bi ko juuti ak bisu topp waxuma nag Bercy. nii ci gàmm waaw. même bis bi ko jiitu bu dee bis bu baax. Mhm. Serigne Saliou nee na ëpp naa méngaleeg bisu gàmm. ba ci noppi noonu bàyyi ma daal ko méngaleeg yooyu. d' accord man tudduma gàmm. non d' accord tudduma sax ci waawa nee naa leen. d' accord waaw bàyyi ma daal bàyyi ma daal xam nga bu ko méngaleeg Bercy. Mhm. dañuy d' accord nañ ko ko nangul xam nga lu tax. Mhm. oustaz war naa dem mbir bu caaxaanu gaay fan moo am bërëbu jàkkaarloo. dama la laaj oui ou non. non munaas dëgg bu ñuy fooyee. nekk noonu oustaz Nour Fall dem na Bercy ah mais bu mais arrêté mais mais Youssou Ndour yóbbu na Pape Anne Bercy Bercy moom Bamba Bamba non. Eh, ah, eh, allez on se calme. non Pape dem na Bercy de. mais du yow ku ko gis mu fekk sa bët toj. du mel maa ko wax. du mel de si. waaw yow Sass Modou Fall li muy def nii boobu li muy def nii. ñu ngi ko gis. non non non

dégagement bi moom moom. première erreur. première erreur ñaareel bi mooy. tullul gàmm de. non daf ne gàmmu Aziz Ndiaye la wax. on a bien kër Aziz Ndiaye. mais Mounass baa nga baa nga baa nga mu daaneel baa nga la wax. ok du diine de garab. allez-y. so Bercy 2004 Bercy rassemblement satanique. ah lii yaay ree yaay ree ba. on am na ci loo xamante ni bu ko kii nit ñi nekk nekk jeune am na ci loo xam ne jombale nañ ci suñu bopp te du ñu oustaz. oustaz Modou Fall n'est nañ fi beneen oustaz oustaz euh, boobu ñu ngi mais pourquoi chaque jour oustaz Modou Fall la. pourquoi est-ce que nit ku war a yeete ci yàlla war ngaa war taxaw euh, par exemple ci rassemblement boobu loola tax a jug gis nga nit bu la dara taxee jug nit ñi buñ la gisee dañuy jàpp ni foo nga dem loolu fu ñëpp di daje nga dem fa dañ lay àtte ña fa nekk ñëpp. bu demee Bercy dañoo jàpp ni Bercy moo ko yóbbu. Bercy la fa am euh, du maître de cérémonie boo xamante ni moo war a animer. Mhm. kii bi liggéeyam TFM du loolu. kon boo nee liggéey moo ko fa yóbbu. Mhm. loolu man du ma la comprendre bu fekkee ne liggéey moo koy est-ce que liggéeyam ko fa nga bu fekkee ni liggéeyam yóbbu bi mu demee Bercy li mu war a def. Mhm. mooy wax leen ne leen lii ngeen nekk ay caaxaan la dañuy waxtaan nag. est-ce que yaa ngi may rawatina mu jël lu toll ni guddik Seydina Mohamed di ko méngaleeg une réunion satanique. boo xamante ni ay nit ñoo fay daje pour fo. réunion satanique. waaw ah, mais bien sûr. xam nga bu ma baal bu ma dee baali. Hmm. ngay baali xam na ni baal baaxul. nous tous sommes musulmans. yàlla da koo tere. oui c'est vrai. Bercy liñ fay dajaloo foo moo fa moo tax ñu di fa dem. Hmm. bu ma fa demoon tey jii ku ma fa gis. jàppal ni dama faa foo nga ni baal. lan mooy baal. lan mooy le grand ba mais defal ndànk. lu mu fay wut. le le grand Youssou Ndour yi may organiser defal ndànk gars yi ñuy organiser na ma baal sax maa ngi tudd turam. mais Bamba li may mujjee wax ci Oustaz Modou Fall nga may ma ko. Mhm. mooy gis nga yàlla bu la yónnee dafa toog fi nga jóge ànd ak yow jiit la fa nga jëm lépp loo yu lóobal ci yónnent bi defe ne dalaa muñul muñul la dalay mujje Oustaz Modou Fall nga xoraat ci yàlla xam ne nekkul danga war a béjaa pour dee borom 7 ans dee na borom 10 ans dee na borom 70 ans dee na borom 50 ans dee na c'est-à-dire gis nga lii nii àdduna jaru lim ciy wut lépp saa bu nelawee fàtte ko. ñett yi la yàlla gën a. waaw mbay mag muy macro. Euh, buur buy fen ak boroom xam-xam bu saay saay. yàlla dëlee na rëbb. te kaay ma wax la benn affaire Oustaz Modou Fall amul kenn koo xamante ni tey jii di nga ko déglu Oustaz Modou man mënuma comprendre nga nekk un prêcheur waaraatekat boo xam ne à chaque fois say waaraate divertissement lay def dëgg la mën nga waaraate di wax loo xamante nit ñi dañ ciy retard pour téye nit ñi parce que nit ñi aussi mënoo taxaw à chaque fois di leen wax safara safara safara safara yaa ngi dégg mais dama laa benn ko wax lii xaalisu soirée la nga ne ko indil mais loolu c'est grave cest kii c'est insulter la religion mënoo man yàlla laa fi teewal quand même ñu naan la xaalis la mbalak nga naan ko ah waa ah, nga rafetal sax ba ba génn jël ko yow en guise de quoi nga war a mën a taxaw di défendre oustaz Modou Fall. mais am na benn oustaz bu parce que El Hadj yow tamit yaa ngi dugg ci diine di wax naan ay baal yàlla da koy tere ce que am na nuyu wala ci livre. non am polo nag. am polo la yàlla foo la tere. ndax am polo waaye dama ni grand baal la ñuy grand baal de nangam la ñuy wax. may oustaz bi. baal ça veut pas dire d' accord oustaz est ce que yàlla ci alxuraan